waye fajj kat bo xamanteni mënul fajj tay fajit dina gaañ hmm ndax it lélé nga fajj lo xam comme rap sa bo sóoboo ci rap té xamoo rap rek mhm. ya nga gañ sa bopp ya nga gañ sa hmm ndax la ngay dindi fé ci sa njabot lay jëm ci mhm. te so xamoon nan ngay def ba protéger wu ci lolu rek mhm. nga gañ sa bopp gañ sa njabot te bari na fi ñu bari ño xam ne joggé rek né rap ño ci mën mais sa bo leen gisee rek problème nga ñëw ci hmm comprendre nga noonu la mel ci faj yi tamit boo gisee tamit ñu baree bari bëgg a bëgg a génnee médecine mooy dañoo xamatul ñan ñooy médecin traditionnel mm-hmm. nan nooy dëgg-dëggi fajkat yi bu mm-hmm. njëkk da xam bàyyi diw ca bërëb sàngam moom dong moo fi mën a faj hémorroïde mm-hmm. ne loolu dong mooy spécialité ñu ne bàyyi diw ca bërëb sàngam mooy joxe njaqi ndoxu siti yi loolu dong mooy spécialité am njaq mhm. ndoxum siti mhm. ñu ne bàyyi diw ca sàngam mooy joxe fasu bopp yu metti yi mhm. ku mu jox fasu bopp buy metti sa bopp dootul metti bàyyi diw ca bërëb sàngam mooy joxe fasu ndigg yuy metti yi ku nekk ak sa spécialité nga xam ne loolu la jàng moom ba mën ko waaye ñun garab nag dañoo ñëw ñun fekk fi loolu yëpp da ngay jàng tuuti dajaloo lu bari sax ne mokkal naa hmm. li ci des yépp sa fit nga ci deme mu doon lu garaaw mu doon lu hmm. garaaw hmm. nit moom saa boo duggee ci ne danga koy faj rek war ngaa xam ki ngay faj mooy kan ndax bakkan la ndax bakkan la te saa boo loree doomu doomu aadama rek yaa ngi dégg ba am nga bàkkaar danga ko layoog suñu borom moo xam danga yokk feebaram moo xam da nga koo rey moo xam da ko koo gaañ moo xam da nga koo indi beneen feebar ñoo yem parce que mën ngay faj nit ci bopp buy metti garab ba nga ko jox indi ko boli guy metti wala biir buy metti wala biir buy metti mhm. moo tax garab dañ koy saytu xam ko xam dosage gis nga garab bu weex garab bu lewet mhm. leen bëggee boole da nga koy doser mhm. sinon koo ko jox di ko gaañ garab bu moom laa bëgg a boole ak garab gu weex pour faj ci nit Euh, biir buy metti kon damay xam ci garabul lewet bi lan laa ciy jël pour mu tolloog ci ay garaam pour mu tolloog garab bu weex bi ci ay garaam dosage bi nekk nii équilibré noonu lañuy doser ay garab waaye ba ci fukki garab ak nangam soo leen bëggee jël bu ci ne ak doosam mu nga mën leen a boole am li nga bëgg mhm. boo ko peesee mu mat sëkk mhm. ci li nga bëgg waye jël fi jël fi bi ëppe bi nangam bi ëppe bi nangam bi ëppe bi nangam hmm. bu ci nek day am lu muy def loraange du indi fajj hmm. loolu lañ moo motax ñu bari bari dañoo daw dugg si té xamuñu lan moy fajj suma nekké ma kat hmm. xam quelque reen né damay fajj comme légui nit ñi ndoxum cité lañ gëna yap ak hémorroïde ndax fé mu ñoy nday jangoré ko gis ku né am na ndoxum cité ci yaram lay né jën yi ñoo koy joxe. Mm. yàpp yu ñorul yi. Mm. gerte gu ñorul gi ak kaani lu nekk day bari ci yaramu nit yu nelaw ak yu yeew am na yoo xamante ni boroom mu ngi koy yëg am yoo xam ne borom yëgagu ko. Mm. léegi nag moom lañ gën a yàpp nag ku jóg ne mën naa ndoxum siti ku jóg ne mën naa hémorroïde ku jóg ne mën naa nangam. fekk ne yoo teetoo ko ba mu mbokk ci sa bopp te da ko war a teet ba mu mbokk ci sa bopp. Mm-hmm. man garab dama ko jàng. Mm-hmm. non seulement du li ma xamanteni dama yalla lay dogal may gentu ñu naama li ak li nangam lay def ma jaragu ko ci sama bop ba xam ko. Hmm. damay dem jangi garab ci mag ñi nga xamanteni beurep sangam beurep sangam la laa leen di fekk. ci hmm. jangal ma ndoxu ndoxum hmm ren sangam ren sangam ren sangam composement sangam composement hmm ki jangal ma hémorroïde. Hmm. nombre de garab yi fi ne yi faj keneen jàngal ma leneen keneen jàngal ma leneen. Mm-hmm. ma jàngaat ko ci chinois yi. Mm-hmm. kayit a ngi nii boo xamante ni ñoo ko bind. Mm-hmm. pour euh, kayit a ngi nii ñoo ko bind bala ñuy jàll sax de passage euh, notice bi nga xamante ni nii mooy garab yi ngay fajee. gor gu ak yoyu bëggoon nañu am chargeur bi mo notice bi pour won ko mbokk yi ñu gis ko ci écran bi bu fekkee jege na la. bo ñu ne woon ñaari ki rek ñu ñu wane ko ci. amna parce que gor gu tële fim toll hmm. bu bo téléphone bi jege won ma won la audio bo xamanteni kiko wax ma nga ba Allemagne. Hmm. nee ma façon garab gu ne jël nako ko. waaye garabu télé gi nga ma jox bi ma njëkkee naan premier sachet bi mm-hmm. waxuma la ngóor a gi ni mu yokkoo waxuma la ko mm-hmm. waaye li mu faj ci sama biir mm-hmm. kenn xamul ni mu kenn mu li mu faj ci biiram moom moo ko wax audio boole maag rakkam boole maag jarbaatam parce que garab la yoo xamante ni neewoon naa garab bi garabu ngóora gi 21 feebar lay faj ngóora rek la gën a da cee gën a fës fës mhm. ñu fësal ko waaye dina faj ñaar fukki feebar ak benn aas nga baal ma ma jóg aqui. sachet yi nii lay mel as mhm. kii pour hémorroïde la mhm. nii la sachet yi mhm. la nii lay toll cinq kudd la kii ku ci naan ñaari paquet lu la hémorroïde moo xam bu génn moo xam bu dugg day dañ ci yow ba set comme na ko gisee hémorroïde lay faj sachet bu nekk cinq kudd lay def donc euh, mu baax loolu ci hémorroïde euh, muy benn garab bi nga xamante ne nii sëñ Mame Mbaye Diouf am na ko te mi ngi ciy baaxee askan wi ñu ci gis seen bopp bu baax a baax a baax macha allah benn baa ngi nii muy hémorroïde Mame Mbaye yii yeneen wàll la góor ñi nga xamante ni seen awra dafa ndaw dafa gàtt wala guddul wala rëyul lii lañ ci maase comme ni ngeen ko déggee kii massage la massage la pour ñi nga xamante ne ni dañoo bëgg a yokk seen awra ñu koy wax pénis donc ñii am bu tuuti ñii am bëgg am bu rëy wala bu gudd tuuti macha allah donc garab gaa ngi nii moom nu mu tudd garab gi. kii day yokk. day yokk mm. waaw. pour yokk awra la. awra waaw mm-hmm. Mm-hmm. moom ñaata kudd la am moom. moom cinq déedéet benn kudd bu mag la. benn kudd bu mag la. moom lay def ci karité. Mm-hmm. bu maasee mu xool ba fu mu toll. mën na koo mesureel boppam. sama bos nii la toloon bu jógee. def ko une semaine nga xool. dana yokk ci guddaay bi dana yokk ci rëyaay bi. su demee ba yem fi mu toll rek nga bàyyi. nga bàyyi bañanti koo jël bañanti koo jël. duñ ko naan dañ koy dañ koy diwoo massage la dañ koy diwoo donc hémorroïde bi la ñuy naan muy mhm. cinq kuddu cinq kuddu nga xam ne képp ku ko naan rek mu may la nga am mhm. bii pour yokk ngóora la mhm. ak pénis moom moom it ndeysaan da nga koy boole karité rek di ko diwoo mm-hmm. di nga gis sa mesure ba foo bëgg mu yem nga arrêté ko bañati koo jël mm-hmm. donc loolu mooy am na yuy jël infection mm-hmm. yoo xam ne ñooy faj infection yi dañ koy naan ak di ko raxasoo paquet yaa ngi foofu dérangement bi laay bañ am na yi tamit yuy faj ngóora yoo xam ne ne du dalay may ngóora nga mën a sëy tey boo ko naanu suba doo mën a sëy comme yeneen garab yi déedéet da jël ñeenti paquet ñaar yi nii lay mel ñaar yi nii lay mel mm-hmm. ñeenti paquet soo ko jëlee mm-hmm. mooy raxas li waroon ci tële ngoor ak gulóot télé moo xam da doon gaaw daanu mm-hmm. moo xam sa kanam bu jógee du dëgër ni mu war a dëgëre moo xam da ngay ñàkk bànneex moo xam da ngay gaaw a sonn moo xam sa awra du gaaw a jóg am na ñoo xam ne seen awra jógee rek dañuy wàccaat balaa ñuy yegg seen kaw jabar wàccaat am ñoo xam ne su jógee rek balaa ñuy sëy rek daanu ci seen kaw am na ñoo xam ne mënuñoo sëy lu wees cinq minutes comprendre nga mhm. léegi nak yoy yep garab gi daf koy fajj ba mu set ci sa yaram mhm. su fekente dañ ko mooñaale ak yi ñu koy mooñaale su fekke feebar la bu ne ci yow mhm. day dañ su fekke rab mo la ko tek day dañ ndax dañ ko ci mooñaale su fekke lo xamanteni nak lula lu la dab la yi tamit nga xane yag fowe sa bop wala yag caaxaane sa bop ba say sidit wàññeeku da koy dindi waaw ah, muy garab gu efficace. waaw ñu ko defar paquet yu bari defar nañ ci yu bari. Mm-hmm. boobu yi tamit moom laa la wax day faj ñaar fukki garab ñaar fukki feebar ak benn. Mm-hmm. mag ñi ñoo ko daan defar. Mm-hmm. benn garabu cosaan benn garabu yu bees amu ci garab yëpp garabi cosaan la. te koy wutali sama bopp. Mm. maa koy defaral sama bopp. lépp di sunguf ak ren di kon nag euh, sunu émission ngoog euh, di sunguf ak ren di émission boo xamante ne nii bu am solo la macha allah ñu ànd kook sunu sang sunu sëriñ waaye sunu xarit Mame Mbaye Diouf mi nga xamante ne nii yàlla may na ko xam-xamam màcc na ci sunguf ak ren waaye it eh, mi ngi ciy xettali doomu aadama yi ndax am na ñu bëree bëri bëri ñoo xamante ne nii fii la ñu fajoo am na ñu bëri ñoo xamante ne nii fii la ñu gisee seen bopp donc maam Mbaye Diouf ak eh, pajum cosaan maam du ñu def rek eh, xanaa bàyyi laa kàddu gi nga tàggoo wax sa mujj kàddu ba waxtu waa ñuy dab ñu tàggoo ba beneen yoon incha allah. waaw kontaan nañ bu baax as jërëjëf fajum cosaan a ngoog. Mm-hmm. gën leen a yeneen a ngi ñëw yoo xamante ni dina doon seen njariñ mm-hmm. euh, njariñu biir ak njariñu biti mm-hmm. ñu ngi leen di kontaane bu baax nasru media TV mm-hmm. di sargal sëriñ bi di ko sant di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd wér di ñaanal auditeur yi ak auditrice yi yëpp suñ borom dolli leen tawféex ku feebar yar na wér ku wérit yàlla boo feebar yàlla na suñ borom may ñëpp wér ak kàttan ah dinañ joxe benn garab ci wàllu may ko ñi nga xamante ni ay góor lan mm-hmm. te danoo ragal tële mm-hmm. muy garab goo xam ne soo ko jëfandikoo rek yàlla mën na laa suturaal ba nga deewaaleeg sa ngóora mm-hmm. déglu goo xam ni la yàlla defal lay la sutura ba nga xam ni yaa ngi koy jël rek di mën a deewaale ak sa ngóora muy lu am solo kon déglu leen sëñ maam. duñ la takk xala. doo tële mm-hmm. doo ñàkk fayda ci kaw lal mm-hmm. ñàkk fayda mooy war a jot sa jabar te doo ko jot mm-hmm. muy garab gu ne wax las las garab gi las la tudd moom sunguf la wala reen wala boo amee reen bi reenu las reenu las dégg leen bu wax nga am ko xoos ko xoos ko xoos ko ba ak yi deñ mhm. mu ne reen bi kese mhm. nga baxal ko ba mu bax mhm. su dee ko ko mën day am ndawal ndawal bi ci gën ndawalu gëléem mu ko ko comme supp mu naan ko moom dong lekk yàpp nan ñeex mi lekk yàpp bi ndawal yi doon bu gëléem dina ci baax lool li sëñ bi wax su amul ndawalu gëléem mhm. mu am ndawalu xar gu góor mhm. kuy mhm. am ci lu yam lu ko li mu li def garab gi noonu li mu ko baxale mu togge ko ndawal li lekk ko moom dong xar mu góor aussi eh, ndawalam baax na ci lool pour que nga togge ko garab googu aussi dina ci am solo boko nané yalla yàlla mën na la dimbali. Mm-hmm. ba ba nga fiy joggé da ngay am katan ba ba nga fiy joggé da ngay am katan ah lolu mako baxé baaxee nit ñi émission. Ah. ak seigne mambe Diouf ñukoy sant bu baax diko gëreum diko ñaanal yalla yalla guddal fanam momit yalla ci rem bu baax baax comme ni koy waxé mam yan jour ngay faral di liggéey manam ngay recevoir ngay fajj nit di mëna ma ñëw ci yow yan jour la. wa jour yëpp inshallah mm-hmm. bam dess aljuma ajuma ah, sëriñ asan kan moo mom mm-hmm. Nah dangay dem nasru falayan laay yendu fa laay mm-hmm. ba bët set di samedi mm-hmm. uh, ma ñëwaat liggéey si comme ni ñu la ci structure ouvrière tay bu ñu la fekkul structure ouvrière man fan lañ la mëna fekk pour jokko bi wa suñ ma fekkul structure ouvrière ñaari kër gu mag la lay nekk Madina Fall su nekkul Madina Fall ma ngi cité ouvrière ñaari barab à la mm-hmm. Madina Fall mm-hmm. soxna sa dafa mm-hmm. yor ba ñu yor bi suñu nekkul rek ñu ngi tamit ñu ngi nekk à partir de 11h ba ñu arrêté ba ñu arrêté numéro téléphone 77 538 17 05 77 538 17 05 797 51 95 797 51 95 ñaari numéro yooyu rek la kenn yoru ko maa ko yoral sama bopp kon mbokk auditeurs yi mbokk auditrices yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen jox dig daje ba beneen yoon sunu beneen émission ci pajum cosaan ñu ànd kooku Mame Mbaye Diouf incha allah yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm yàlla dafa leen jàmm ak tawféex yàlla nañu duggaat ci beneen émission ñëpp fekkee ñëpp tal waaye it lépp lu ci waay di sàkk wala lépp lu ci waay di jaan wala lépp lu ci waay di def lu it yàlla na ci gis résultat yàlla na ci am tan incha allah yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def maam xanaa def lu dul ñu ñaan rek ba beneen incha allah allahuma salli salaatan kaamilatan wa sallim salaaman taaman ala sayyidina muhammad nabil karim alazi tanhu taqtawal aqdam biha wa tanalu khawatim wa yattasal hamam wajhal karim wa ala alihi wa sahbihi umhati wa nafsin bihadada kull mahlumin lak waktub lana waktub lana waktub lana allahumma bijayka ya na faw sahadati abadiyat lan seen do asam jërëjëf jërëjëf as bi de xam naa war naa neex mu ne bi de war naa neex